jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futur Média ñu yegg si ci ports et traits ports et traits nag léegi miin ngeen concept bi dañuy dem euh, seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy candidat euh, yi euh, kon samp seen ndënd ci élection présidentielle bi 24 février ngir waxtaan ak ñoom xool leen ci yeneen angle gis ngeen ànd nañ ci ak maître Madické Niang ànd nañ ci ak Issa Sall bu pur tey nag dañ leen indil beneen candidat muy président Macky Sall président Macky Sall maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu aussi seeni téléspectateur di mhm. nuyu suñu mbokk Sénégal yëpp. Mhm. Euh, si jamono ji ñu nekk. am naa mbégte nag euh, euh, jano ak yow c'est la première fois euh, may may jano ak yow président. waaw loolu dëgg la. bien mhm. que xamoon naa la bi ngay doog a tàmbali nekk journaliste bu ndaw yàgg na nag loolu. 2007 la woon 2007. waaw mu ngi bëgg a def fukki at ak ñaar. waaw waaw maa ngi lay maa ngi lay sant bu baax. si liggéey bi gis naa ne awaa nga bu baax a baax. merci mais voilà bëriwul nag lu may def xeetu émission yi. Uh-huh. mais waaye comme dañu toll aussi si élection. Mm-hmm. te malgré li ma fi voilà def juróom-ñaari at mhm. xëy na tam waxtaan ak mbokk yi si loo xam ne se moins formel am na mhm. solo pour nit ñi gën a xam candidat bi kan en tout cas président di la seetaan euh, ci télé wala di la déglu ci rajo mbégte la donc merci président euh, ci li nga xamante ni euh, moom nga def léegi ci CD ma wax ma Macky Sall wala ma wax président mën nga wax Macky Sall bu fekkee nit ñi la ñuy waxal lépp benn la xale yu ndaw yi sax Macky Sall lañ wax. Macky Macky xale eh, yu ñaari at ñett. donc loolu moom homme politique bu ne war na nangu ñu koy. <laughs> wax Macky Sall ci turam d'ailleurs souvent booy xool wax président Diouf mhm. eh, mhm. wax président Sall bëriwul lañ wax. donc bi a euh, waaw Macky. alors euh, Macky ñëwaat euh, un peu ci parcours parce que ñëpp xam nañ ko nekkatul information président bu juddu Euh, après indépendance euh, di 1961 ca Fatick euh, mais laataa ñuy ñëw ci Fatick dañoo gis sa kër gi nekk fii ci Mermoz fii sax la ñuy émission bi da ko bëgg lu tax. waaw kër gi yàlla def na maa ngi ko jëndoon ci atum 2005. Mhm. boobu nag këru terrasse la woon comme ni fenêtre Mermoz meloon. Mhm. waaw ba ba 2009 nag bi ma génnee ci assemblée nationale ci laa ko transformé. Uh-huh. pour mu mën mën fi dëkk si. Uh-huh. alors boobu ba léegi 2009 ba léegi fi laa dëkk ba 2012 bi ñu may fal. Uh-huh. toog naa fi d'ailleurs boo leen di xool lu toll si juróom-ñetti weer. après 2012 après sama paline mais nit ñi commencé indi coow. naan waaw président dafa war a dem pale demam ak dëkkam day indi ay. ay embouteillage dugg fi génn fi <laughs> boo ma dem. waaw waaye daanaka ñaari at lañ fa def sama waa kër vraiment bi daal président. bëgguñu ñun daal on préfère rester chez parce que mhm. seen kër la ñu gën a xale yi surtout madame aussi moom elle est plus à l'aise fii si këram plutôt. xam nga palais nag dafa nekk loo xam ne batiment bi certes rafet na nii. Mhm. waaye si kaw waaye ay kër yu yàgg la. Mhm. te amul amul tellement xam nga ay gendarme ci nekk. si biir si mhm. biti donc vraiment. chaleur familiale voilà loolu doo ko ci am boole ci tam. wax dëgg yàlla il fallait que euh, man mu dund. nguur gi loo xam ne la ay. luñ lay jox la pour ngay liggéey. maanaam ay jumtukaay la. waaye du loo xam ne mooy finalité. parce que euh, da ngay nekk président pour transformer maanaam mhm. pour indi yokkute si mhm. askan wi ak si doxalin bi mhm. waaye du nguur gi ci boppam moo lay yenu nag yow yaa war a nguur gi donc bu fekkee maa ngi sama kër étant président de la république xam nga kon même bu ma fi ko nekkatul man ah, amu problème am benn changement si man parce que euh, mbir mi doo ko yenu nag dégg naa nag dégg naa pouvoir boo ko ye boo ko boo ci nekkee il faut avoir les épaules solides waaw loolu nag <laughs> aussi yàlla xëy na mayu yàlla la ak ci yar parce que am na ñoo xam pouvoir daf leen di dofloo ndax euh, nguur gi daf lay jox ay daf daf lay jox ay ay cër mhm. ay euh, booy dox dañuy wàcc nit ñi mhm. boo ñëwee ñu ne wàcc leen mhm. taxaw leen ñëppay ñëw nga doog a ñëw loolu bu fekkee comprendre loo ne protocole la rek parce que ay nit bu ñu nekkee ci àdduna di dox mu am nañ ko organiser jàkk ji bu ñu si nekkee il faut ñu xaar imam mooy mujj ñëw mooy jiite et cetera donc organisation la état organisation moo waral lool mhm. mais nag ci am nit ñu bare ñoo xam ne loolu dafay xaw a tourner seen bopp yi. maanaam leen di xaw a dofloo daal daf leen di xaw a dofloo ba ñu mhm. rakkaaju alors mhm. loolu nag yal nañu si yàlla musal. Euh, mbir mi jàpp naa ne man pouvoir mënuma changer parce que fa ma yaroo la ak nañ ma yaree mhm. ak sama personnalité bopp euh, euh, justement moo eh, tax ba eh, yàlla suturaal na ma daal mhm. ay ay mbiru àdduna lu ma mhm. moo tax ma dëkk sama kër lu bari si samay oto yi ma yor samay oto bopp la du oto état bi d'accord li ma si jënd yegseegul donc bi ma fi nekkee ba tey sa yëfu voilà loolu yëpp day wane ne sobriété bi nga doon woote am na lu ñu war a gisee voilà pouvoir plutôt que loo xam ne doole la ak di justement yaa ngi wax wàllum éducation ne yow dara yëngalu la euh, yaa ngi koy wax léegi euh, damay ñëwaat un peu kon ci yarin bi euh, mhm. ndaxte di fàttali ne Amadou Abdou Sall sa way jur bu góor Kumba Timbo sa way jur bu jigéen yar bi nga xamante ni def nañ ko ci yow nekkoon mhm. ay parents yi nga xamante ni seen am-am tax koon demee noonu mais ñu mën a yar juróom benni bant macha allah juróom juróom juróom juróom juróom lañu sunu sama benn mag parce que man du ma taaw mais may taaw bu góor ma mhm. mag roxee mooy suñu taaw maa si topp mhm. di taaw donc di di mhm. xalif bi tey moo doon jël kaala mu naan ne may xalif bi et puis Aliou Sall moo topp si man Mamadou Adi ak Abdoul Aziz donc euh, juróom lañu ci njaboot gi waaw samay waajur toujours dama leen di jalloo njukkal ndax euh, dañu ma yar si diine d'abord yar ma ci aada aada bi mooy ma xam ki ma doon ak fu ma jógee euh, wax naa ci tuuti rek si sama livre bi ma bind le Sénégal au cœur mhm. parce que xam nga euh, boo nekkee émigré parce que bu fekkee sama papa mu ngi jógee Fouta ñëw fii comme tous les jeunes tukulaar que vous voyez en général ñu nekk ay sireur ñu di jaay laveur de voiture yeeg de voiture dañu ñëw nekk mhm. émigré mhm. te bu ñu ñëw dañu nekk ndaw parce que tukulaar yi dañu baaxoo teel génn pour te a tekki parce que xëy na environnement foofu donc boo ñëwee nekk émigré di liggéey daan sa doole eh, continuer it ba noonu la andee sama yaay ki sa cousine aussi. Mhm. mu ñëw Fatick moom bu muy bu ñuy tabax tali Fatick Kaolack bi si la ñëw 1948. si lañ ko jëlee mu ci liggéey après mu toog Fatick. Mhm. yàlla def fa la de famille am. Mhm. Eh, fa la ñu juddoo ñun. Eh, donc lim ma yaree man sama papa ak mooy lépp loo amul donc nga ko war a muñ. si sa àdduna euh, aussi comme ni mu ñu doon wax en pulaar ne biir du fen maanaam mhm. la nga ci dugal yow yaa ko xam yaa koy wax donc la am amoo ko bu kii amee ganaar yow nga am sa sombi wala sa laax mhm. wala sa mbaxal mhm. bon soit digne de la nga am na la yàlla am na benn woykat bu ko woy sax président loolu man ci laa màggee. dara dara mënul fekk. am na benn ko nee na cent franc noos mille franc noos million noos. voilà exactement <laughs> voilà nit ki moom si sa xol ngay bëggal sa bopp rek. Mhm. wala nga bañ aussi. am jalousie parce que loolu mooy indi jalousie di xool keneen am yow amuloo ko. Mhm. loolu itam yàlla suturaal na ma si mosuma am jalousie sama mhm. adduna. depuis que j'étais tout jeune. mais nag dama mos am fulla ak ndax. très tôt sama mu jàngal mooy. fexeel ba yow sa ëllëg big big bi ñuy bindee nekk sa pikk ak sa pelle. bi bi ouvrier bi liggéeyee. Mhm. donc il faut étudier dafa mos a bëgg ma jàng. bi ma demee ba se ba yegg brevet at mhm. boobu la retraite mhm. xam nga à la ni ñu koy waxee bu ñu ne ala ji à la traite na pension tuuti njaboot gi waaye nag ñoom yàlla moo leen defaloon sutura ñuy malgré salaire yi ñu si sut ñu ñu yor seen njaboot vraiment quand même si si si anam yoo xam ne si anam yu normal la voilà du excès mais quand même y avait pas de difficulté majeure euh, léegi pension le bi mu jeexee en 1979 ma am brevet bëri na ko waaw Macky dafa war a dem jàngale ji waaw parce que bu fa naree tekki bu mu ah, nekkoon seconde nekkee seconde boobu boobu maa ngi pare troisième jëm seconde seconde waaw mu ne ma loo bëgg a dem ma ne ko man dama bëgg hmm. continuer papa soo continuer uti bac et mu ne ma il faut continuer man li ma encouragé la ci encouragé ma hmm. après bac ñun revenir ne ko voilà école normale supérieure am na wala cadre ruraux mën na dem liggéey nag hmm. aw way juri mu ne ma man li ma yor bi léegi donc continue li nga bëgg a def nga def ko nga def ko boobu moi je voulais être ingénieur géologue déjà si terminal parce que boobu ñu ngi wax lu bare bare vision bi voilà bëggoon naa def géologie boobu institut des sciences la terre créer nañ ko mhm. mais ñuy wax lu bëri si mi fer soo fer fer de Falémé wax ay or bi ak yooyu mhm. bëgg a jàng loolu parce que bac C laa def mhm. donc yàlla def ma ñëw def concours bi jàll ñëw université de Dakar donc institut des sciences de la terre juróomi at donc loolu yëpp moom muñ ko. ak sama yaay. mu métti mais déjà nag mhm. bi ma ñëwee dès que ma am bourse parce que institut bi dañu amoon bourse. Mhm. demi bourse puis une bourse entière tout de suite sama yaay parce que moom itam comme benn sœur la am xam nga nee la benn jigéen la donc liggéeyu kër gi léeg-léeg benn jigéen mhm. doyul des fois moi je prenais le bu dee day yóbbu machine ay wol. walukaay walukaay damay dem ci machine. yooyu def na ko def naa wol parfois même root naa. Mhm. parce que elle est elle était seule parfois si ma soeur pas là. Mhm. Euh, les bonnes euh, du doy daal il fallait mhm. l'accompagner. loolu nag dafa bokk si lima ma marqué. jigéen ñi suñu yaay yi dañ leen war a jàppale. dañuy jaay dañuy jënd ay. ay ay ay dibe li ñuy wax dibe si pulaar moom par exemple man am na ay ay lam yu rëy yu ma daan gis ñoom ñu ko doon def si tànk comme naari lamu mhm. xaalis yu rëy mhm. ak yu loxo en fait bi may bi ma amee bac la jaay yenn yi mhm. Kaolack pour ma ñëw ak moom Dakar à l'époque joxoon san koy fekk dafa jaay ay takkaayam waaw pour ma ñëw bi may ñëw université première année pour nu ma yegsee et puis évidemment trois mois après amoon naa bourse logé nañ ma mais déjà quand sama ñëw Dakar bu njëkk si loolu la jaar mhm. voilà donc man bi ma amee bourse sama premier réflexe après samay dund minimal bokk ko ak say waajur mooy bokk ko ak ak maire bi d'abord mhm. déjà chaque mois dama doon dindi dix mille francs de ko yónnee mais ba may pare mais loolu étudiants yi war nañ koo dégg mais wax naa leen ko keroog bi <laughs> ma leen recevoir nee naa leen li tax ma bëgg a yokk seen bourse ah, xam ah. naa jafe yi ngeen di dund mhm. jaar naa si déjà ma ne leen daan naa partager sama bourse ak mhm. samay parents parce que voilà ensuite euh, li ngeen di fey il faut ma wàññeeku parce que mhm. tey tey li ñu fay si ticket restaurant moo gën a yées man li ma daan fay en tant que étudiant il y a mhm. donc loolu aussi c'est parce que bëgguma benn étudiant wala benn doomu réew mi njàngam yàqu parce que simplement amul parents yu ko jàppale donc lu ñu si mën moo tax ñuy fay ba soixante et un ci bourse mais nag foog ñu jàng. waaw jàng bi moom c'est primordial moom jàng ah. moo tax ñu yoo parce que mm-hmm. topp aussi ay affaire de grève ak yooyu. si mm-hmm. ñoom rek lay dellu. parce que ñun lu ñu man j'étais dirigeant du mouvement étudiant dirige naa lu nekk na <laughs> mais mais euh, njàng mi moom. Uh-huh. boo dirigé ba ngoon tam guddi gi da ngay. da ngay jàng parce que loolu moo la fi indi. ñoom ñoom ma maoïstiste la tudd la tudd wala euh, mouvement marxiste léniste. waaw xam nga je man maa ngi woon bañkat bu mag mag mag mag mag mooy président <laughs> Macky Sall. bañkat waaw amoon naa si jaar jaar quand même. parce que si jamono jooju. waaw ànd jëf dafa nekkoon parti bu am solo. bu Landing Savané bu Landing Savané. ok ñu tuddee woon ko AJMRDN mouvement mm. révolutionnaire pour la démocratie nouvelle. am nga nag ay théories yu doy waar la woon à l'époque. waaw Lénine de moom waaw bon mouvement marxiste léniniste. mais ñu yokk si armée de la pensée Mao Zedong. maanaam lii mu marxiste léniniste defoon boole ci nag ak li Mao def si Chine. Mhm. loolu moo doon ci gàttal philosophie bi agi doon doxal léegi nag ñu dugal ko ci réew mi mhm. def ci théorie yu bari nag bon ci biir loolu tam man yàgguma fa parce que aussi très man dama ne euh, gouvernement bi fi newoon à l'époque parti socialiste maanaam président Diouf d'ailleurs di sama papa ju baax di xarit aussi xeex naa la nag en tant que étudiants. étudiants parce que voilà pour ñun le parti socialiste moo doon incarné. Mhm. nguur ak domination ak nooteel. parce que moo tax tey dinaa comprendre sama nguur aussi. mais nit ñi naan voilà euh, voilà. mais euh, sa waajur bu góor la woon. waaw ah. socialiste la woon parce que mhm. jamono jooju pratiquement parti unique la woon. Mhm. paa yi moom surtout mag ñi ñoom mhm. ñëpp ay PS la ñu woon nag moom bi ma commencé à PDS euh, dëgg. bàyyi na ñoo jàppale si ma. dafa dafa wàll même sama homonyme bi ñu ma tuddee El Hadj Maguette Gassama qui était le maire. socialiste jàppale na ma aussi. parce que ñoom itam boobu comprendre tuñu woon dans le cadre des conflits internes du PS. Mhm. bon déjà en 96 j'ai eu leur soutien ñoom ñëpp. Mhm. voilà mais mais mais, mais man euh, aspect euh, euh, euh, Macky Sall bañkat bi c'est vrai que depuis nga nekk élève la depuis nga nekk étudiant loolu moom moo wëy peut-être euh, ci sa ci ci sa cursus boobu yëpp euh, mais ñu bëri dañoo jàpp ne que que ne nga calme. waaw ñaar yëpp am na. bankat la dama calme ñaar yëpp am na waaye mbañ gi nag boo koy xool mhm. fu sore la jógee si sama euh, cosaan mhm. waaw dama dul bëri di wax loolu ndax xam nga bu nekkee dans une république mhm. am na débat yoo xam ne day jafe ñu koy indiwaat mais man ci sama cosaan sama askan comme on peut dire ay bañkat lañu ay ay lañu si niñ koy xamee ci Fuuta surtout de Ceddo Kouliaby mhm. donc ñooñu Ceddo Kouliaby li leen marqué mhm. mooy ñoom ñoo défendre Fouta mhm. ñoo doon aussi di conquérir des de territoires donc ñoom dee bañuñu ko gàcc moo leen lañu gën a bañ ko di dee ndax dañ naan toujours booy dem xare gàccee ngi sa ginnaaw waaye dee ngi sa kanam donc da war a quand même dem malgré tout parce que ëllëg li ñuy wax moo tax loolu nag du du yooyu la am tey waaye dafay wane ne Euh, nit ki euh, war na sàmm ngoram. Mhm. nit ki war na moytu lu lu koy indil gàcce. tey ak ëllëg. donc loolu dafa nekk aussi lu ma hérité. Mhm. parce que sama éducation aussi très jeune. ci la ci la bokk ci la bokk. Mhm. ñaareel bi tam calme bi. Euh, dañ ma ci yar. nit ki da nga war a maandu da nga war a yem da nga war a aussi muñ. parce que suñu borom moo ñu ko inna layma sabirin. nit yàlla mu ngi ak waaye muñkat yi. te boo nekkee si àdduna surtout bu la yàlla jiitalee. Mhm. da nga war a nangu que nit ñi di wax si yow. di def ci yow te doo tontu. parce ah, que boo tontoo boo tontoo dootoo liggéey boo tontoo tu passes ton temps à répondre. Mhm. dafa am ñoo xam ne dañ ne boo nekkee si kaw ñu lay sànni xeer yow ngay jël di tontu mais doo doo doo nga yéeg doo doo mos a yegg donc wax jooju amul solo. Mhm. booy xam parce que benn du wax ju am maanaa. lu ci gën bëri ay accusations gratuites donc man du ma tontu xeetu wax yooyu. doo tontu. du tout. taloo wax. waaw déedéet. Mhm. man ci jëf laa nekk. Mhm. te jëf ji je crois mu jëf moom yàlla du fay wax mu bàyyi jëf. Mhm. te nit ñi tam mën nañu xam différence entre kii wax ak kii jëf. te man sant naa yàlla nag parce que bi ma ñëw ci bopp réew mi fekk naa fi jafe-jafe yu bari quand si diiru juróom-ñaari at ab réew kenn mënu ko tabax si fukki at sax mhm. waaye def nañu loo xam ne kenn mënu ko weddi mhm. def nañu lu am solo mais lépp mënul sotti si si diiru juróom-ñaari at mhm. même bu ma amaatee juróomi at bu may dem lépp du sotti waaye li gën a am solo dinañ ko def surtout li amoon solo pour man dëgg-dëgg mooy dundunu askan bi nu ñuy fexe ba mu ba mu ba mu yomb ñu wàññi jafe-jafe askan boobu bi ma fi toogee ba léegi gis leen benn prix bu yokk loolu lu jafe la si juróom ndax bu dul dara sax inflation normal dafa am at mu ne waaye ñu wàññi njëg yi parce que dafa am solo pour man jàppale ñi seen loxo matul seen digg ginnaaw mooy bourse ma lay ñoo xam ne mosuñu xam état mosuñ ko liggéeyal mm-hmm. bu ñetti weer yu ne jotee ñu ñëw mm-hmm. jàppale leen mm-hmm. pour seen njaboot mën a aussi am si lu ñu téye loolu pour man moo ëpp solo autoroute bi ñuy wax ak ay ay train bien que loolu aussi lu am solo la parce que réew tam suñu bëggee xale yi am liggéey bu ñu bëggee réew mi koom-koom bi di dox suñu bëggee Sénégal jëm kanam faaw mu am ay mandarga mhm. euh, courant par exemple mu doon nekk si dëkk xuy kamañ tailleur yi mënuñu liggéey mhm. euh, ku nekk xam na groupe yi ñu mel ndox mënul am mhm. yooyu faaw mu am waaye itam faaw doomu aadama bi ñu bàyyi ko xel wérgu yaramam ak euh, dundinam mais justement doo tontu mais quand même dañ di son caricaturé kenn koo xamante ni dafa mën ñàngal du reetaan peut-être homme d'état tamit peut-être warul bari rek wala non reetaan moom di rey rek di signé ak fange yooyu moom yëfu ñàkk fay la man nekkuma ci yooyu mais. <laughs> non bu mu waree reetaan danaa ree dañoo bëgg ah, man damay ree en privé damay ree ñu ma war a ree. Ah. su ma gisee mais nag toog nekk kilifa. di xaqataay non loolu. du <laughs> yow doo ko def de. déedéet de la vie. kon yow ñu wax la que da ngay ñàngal ou pas. yow non ñàngaluma ñàngal bi tax xam nga fi mu jógee dëgg mooy bi may nekk ministre de l' intérieur <laughs> ma dem defi ànd ak gars yi ñu defi benn. benn patrouille. Ouais. parce que dama waxoon police bi à na nañu def patrouille guddi et tout ça. encouragé mhm. leen si bon ñii naan euh, émission Rik Inter daan na am. bon après ga yi génne xam nga rek seen mbokk journaliste yi Macky <laughs> ñàngal Sall mu topp ma nag ba léegi mais ñàngalu ma man damay reetaan bu baax mais fu ma war a reewee a waaw parce que nag tam euh, di kex-kex yi rek nii te lu amul saf xorom nga reelu saful xorom nga ree man bon am na ñoo xam ne tam loolu mooy li leen di dundal mhm. waaw moo tax gis naa sax campagne bi dafa neex trop am na si koo xam ne moom gis naa ne moom toj na fépp <laughs> waaw <laughs> nag sama xarit la mais damay attaqué rek ndax moom ndeysaan su ah. ma dikkee moom mun naa ko tudd parce que sama xarit la ah. comme dañ ko naan moom dafa ànd ak man moo tax muy dóor chaque jour mu ngi dóor mais ajjuma ma ah, yow xanaa yëf yi moom dafa am lu ci rax parce que ni ngay waaye nag quand même il faut <laughs> reconnaître que nit ku entier la wallaay waaw loolu nit ku xol bi baax na c'est très important xol si doomu aadama moo tax li may wax du ma ko tenir xam naa ne day campagne rek moom bu <laughs> campagne mu ngi sañsee mu ngi def yu ko neex daal. di wax campagne bi bu demee Fatick naan toj na Fatick. <laughs> Ah, en tout cas tooñ na la nee na daw te wane nga Fatick moom vraiment. ah man de daw naa ñoom man daw moom na bu. man président daw naa un kilomètre ak lu topp moom nag. non daw bi sax li ko indi dañu ñëw Fatick mbir yi jaxasoo rek sa yaram tàng sama yaram tàng xale yi bañ a avancé ma na leen nañ avancé même sa discours naa yegg ñu filmer balaa timis même sa discours sax da ngay sentir émotion bi ak énergie bi waaw loolu nag Fatick la fa laa juddoo aussi mhm. te muy dëkku séeréer man may tukkuleur xam nga loolu déjà dafa dafa nekk mariage bu am solo mhm. buy wane Sénégal ni mu mel. Mhm. Euh, je dis toujours je suis devenu séeréer de culture devenu mhm. pulaar de culture séeréer. Mhm. donc un Sénégalais de synthèse. Fatick nag bu ma fa ñëwee dafa am leneen luy dugg. parce que fa la màggee fa la xale yi tam. beneen def beneen affaire la. wallaay beneen moo tax ma def loolu ànd ak ñoom daw pour ñu yegg. en tout aussi une manière de les entraîner parce que bëgguñu woon bouger. en tout cas euh, campagne moom gis nañ énergie bi ngi ci rek euh, daal di yi mais duñu jeexal sa pensée traite duñu wax. relation bi nga am ak sa famille muy soxna Mariam fay di sa sa sa doom yi nan ngeen ni man relation nga am ak ñoom. waaw d'abord au-delà de ak ak doom. damay sant yàlla sant ko bu baax si soxna si ma may. Mhm. muy Mariam Faye ak euh, samay doom njaboot gi mhm. ma may. sant si ñu ñett bantu maam yàlla niñ koy waxee. macha allah ah, Amadou <laughs> sama papa laa ko tudd amiin sama papa laa muy Amadou Macky. Mhm. man je suis Macky Amadou c'est comme ça. Ah. donc Amadou mooy taaw bi moom jàng na ba pare. Mhm. léegi def na MBA am waaye depuis daaw mu ngi fi. mu ngi mhm. daal di di. xam naa nag di voilà di xool nu muy liggéeyee lu jafe la parce boo xasee nekk doomu président loo jege ñu ne dañ koy faral dugg fi génn fi xatum euh, dervis euh, sàll moom mooy jigéen benn doom bu jigéen la am ah. moom moo si top fii euh, unique voilà ak euh, mooy sama xarit aussi loolu laa la bëggoon a wax. Ibrahima <laughs> Ibrahima Khalilulaay euh, uh-huh. uh-huh. Mohamed. Ibrahima Mohamed. Ah, Macky Sall moom it moom toujours dugal nga Macky ci biir comme man ni ma dugalee Seydou bi. voilà mu ngoog donc euh, loolu waaye nag soxna si moom. Mm-hmm. dama koy sant ndax bi ma ko xamee. lu mm-hmm. tuuti loon elle était en classe de terminale. wallaahi Diourbel mu bi mu ñëwee Ndakaaru dem institut. Mm-hmm. nekk étudiante ci wàllu génie électrique. Euh, at boobu la ñu sëy mhm. am doom aussi suñ taaw euh, ndax suñu taaw moom tax en fait mu bàyyi jàng mu bàyyi jàng waaw ndax bés dama ko bàyyi ñu dënkaan na ko mu war a mu dem liggéey ñu ne ma xale baa ngi jooy di jooy di jooy euh, ba mu ëpp dayo ma del ma bàyyi liggéey bi ñëw jël ko mu continuer man mënuma ko woon mënuloo ko dara xale buy jooy moom yaayam rek waaw bon moom mujj yóbbu institut ak euh, Ndeye Derwis bi nga xam ne ak Amadou muy Amadou. mën jooy dégg naa jooy jooy mhm. ma dem ba ci amphithéâtre bi ci laboratoire bi. jébal ko ne ko <laughs> <laughs> xam am na lu mu ñëw ween bi mu <laughs> noppi ci saa si ah, waaw mu ne moom nañ ko yónnee ay bagages am këram elle rentre chez elle. Ah, s'occuper de ses de son mhm. enfant. Mhm. donc ni la bàyyee njàngam xam nga loolu ku koy def. ci jamono jooju sans compter combat am yëpp mooy man lu may sutural. sama victoire sama réussite. Mhm. vraiment déjee na addunaam yëpp ci loolu. ci yow te daf may jàppale. ci ci mhm. lépp nag. Mhm. donc moo tax moom. une grande dame euh, c'est une grande dame. te vraiment surtout une dame de cœur aussi. te it ku bëgg jàppale si wàllu social la. ku bëgg joxe ñam la ku bëgg. voilà donc loolu aussi dama koy seede. dóor nañu fi ay laax yu baax mu ngi may jàppale ah bon jot ngeen ci xew lu tuuti waaw loolu baax na fii ba ci permanence ba lay joxe rek. macha allah macha allah loolu itam dafa am solo parce que mhm. il faut pas jigéen ñi tam perdre valeur yi fi suñu yaay yi daan am. Mhm. yooyu yëpp c'est des valeurs sénégalaises. Mhm. di joxe ñam gardien yi leen wóor nit ñi liggéey ak yéen ñu leen si bàyyi xel. c'est important. que ñuy perpétuer loolu. en en tout cas euh, euh, euh, merci président témoignage bi nga def kon ci soxna. ah fii la ñuy euh, yem ak euh, ak tre très mais peut-être avant ñu jeexal ce euh, dernier mot. waaw sama dernier mot de mooy d'abord xale yi maa ngi samay doom maa ngi leen yar. Mhm. cadre boo xam ne cadre familial la seen yaay nag moo leen gën a yar. Mhm. mooy wax dëgg toujours di leen wan seen papa gis ngeen fa mu jógee ak. fa mu yegg si donc nangeen ngeen góorgóorlu te lii mu nekk te day jeex. Mhm. voilà président bu subaa beneen vie mooy ñëw donc na xam nañu loolu te kontaan naa ci ni ñu ni yeme seen place. Mhm. kenn si ñoom mosul ñëw pratiquement sama bureau. Mhm. bien même ba ñu dëkk palais. Mhm. donc xam nañu domaine familial. xam nañ seen place daal xam nañ seen place. Euh, léeg nag ñu wax ba tudd leen di leen dëkkal fu ñu dëkkul. loolu li ñu doomu président moo tax. donc loolu tam du ñàkk. Euh, mais waxtu wi may terminer ak yow maa ngi xalaat samay wayjur ndax xamoon naa na ñu bëggee woon ma réussir. sama papa fekkee na bi may am liggéey. ci tàmbali Petrosen pa fekke na bu may am sama taaw bi tuddee kooku ah, donc moom loolu la ci am mhm. sama yaay nag continuer na ak man ba ba may nekk premier ministre président assemblée mhm. may nekk assemblée la gaañu mhm. en 2007 ñoom ñaar ñoo bokk benn bés bu ñu génnee àdduna 23 septembre kii 98 kii 2000 2007 euh, même jour bi 23 décembre même 23 septembre voilà donc loolu itam euh, muy misaal bokk bu doy waar muy neuf neuf jour pour jour alors waaye tey jii bu bu ma bu doon suma sago ñu mën fekkee bu doon sax benn bés euh, ñu xam ne la taxoon ñuy xeex waaye nag mën nañu am yaakaar ne xëy na suñu borom bi nga xam ne. Mm-hmm. mooy mu xare leen aljana. Mm-hmm. Euh, xëy na ñu ngi koy yëgee noonu itam. Mm-hmm. donc loolu nag damay lancer appel itam képp koo xam ne sa wayjur mu ngi dund na nga góorgóorlu xam ne c'est des moments uniques yow mënatul rattraper toppatoo leen. jàpp leen te xam ne ëllëg di nga leen mën sa bëgg soxla te mm-hmm. dootoo ko mën a am mm-hmm. donc euh, recommandation la mm-hmm. ëllëg bu may woote ji du moins dimanche toujours bu may woote ji damay njëkkee ci armeel yi. Mhm. ziare leen doog a ji en tout cas li ñuy wax ni temps bu boo dépassé doo ko mën a rattrapé kon ñu bàyyi xel ci suñuy wayjur moo nekk message yu kon candidat euh, Macky Sall di la gërëm nag bu baax a baax ci disponibilité bi mu nekkoon Ports et euh, amoon nañu nag euh, yéene ànd ak candidat bu Sonko 2019 ak bu Idi 2019 mais seen jot Hmm? mayu leen euh, pour ñu euh, euh, bokk ci ports et traits def nañu nag suñu kéemtalaay kàttan parce que il faut ñu am honnêteté intellectuelle quand même wax ne def nañ lu ne pour ñu ñu jaar ci émission bi mais seen jot mayu leen ko di gërëm Madi Keñan ak Issa Sall président Macky Sall maa ngi lay gërëm bu baax ci li ñu dalalee sa kër Mermoz nekk portrait bu mujj di leen jox dig daje peut-être beneen yoon ci ports et traits